mafia bi tey mën nañ euh, ñi dëkk ñi fi dëkk ñu bari fii lañ nekk am nañ jeunesse boo xam dañoo déterminé mais lii problème bi rek mooy su xamee ni jot na éclairage public dafay dafa am na commissariat de police kon war na am fii benn poste de police de proximité mënuñu comprendre 17 quartiers amuñu école élémentaire te loolu c'est anormal donc nag loolu nañ ci bàyyi xel xam ne loolu dañ ci taxaw même fekkee collège lañ bëgg nañ def collège mixte école élémentaire ak collège waaye mënuñu nangu initiation bi suñuy doom duñ am fu ñu jànge ñu ñu indi ñu mettre les infrastructure am fi de base surtout poste de police centre de formation pour les jeunes et pour les femmes amu fi am centre de santé mais opérationnel lu ko xam ne moom lañ ko soxla ndax médicament yi day day a attambali kon lépp loo xam ne beneen localité ñu koy am ñun Yeumbeul Sud bëgg nañ ko